jamono yi ñu génn xam ngeen ni werante bu rëy am na polémique euh, boo xam ni yaatu na lool ci réseaux sociaux yi notamment ñuy wax ni foofa du woon maison des esclaves leneen la doon jariñ lool yëpp danañu ci gindeeku ak euh, professeur mi nga xam ni yàlla def na fekkee na démb fekkee na tey itam macha allah yàlla na fi gën a yàgg te mu ànd ak wér Diop ñu ngi lay nuyu di la ziyaar bu baax a baax am mbégte sekkaat ak yow waxtaan ci démb ak tey. maa ngi lay fay bu baax Mm-hmm. professeur ni ma ko waxee tey nag dañuy waxtaanee loo xam ni euh, histoire la bu am solo euh, muy euh, mbiram njaayum jaam waaye itam gore gi nga xam ni tey mooy symbole bi daanaka ci Afrique nekk symbole yi àddina rawatina ak nag bu Sénégal maison des esclaves ba rawatina danañu gën a xuus ci waxtaan wi waaye ngir tàmbali ci île de gore cosaan li loonu ci mën a wax. Euh, day tur woo xam ni tubaab yi ñoo ko fi indi. Hmm. Euh, ci li gën a wér euh, ci biir tubaab yi ñi ñu tuddee hollandais yi maanaam ñi dëkk tey Pays-Bas seeni maamaati maam. Hmm. ñoom ñoo fa indi tur wi. turu gole mi ngi jóge ci ñoom seen lakk jamono yooyu góor góor góor red góor red. Mm-hmm. maanaam su ñu ko doon firi tey ci euh, euh, fran ci ci ci euh, wolof day dañuy jaar ci baatu français mu nekk bon rade maanaam bon escale maanaam barab boo xam ni ku jógee ku gaal bëgg a teer mën nga faa teer te te doo am benn benn jafe-jafe mm-hmm. mooy good rade ku réer dina dégg rëy. mooy euh, euh, soppeeku ba doon goree. Mm. yaa ngi may dégg de. voilà ci gàttal. Mm-hmm. noonu la guutu réer. Mm-hmm. dégg mooy soppeeku nag nara doon goree. Mm-hmm. boo ko français yi jëlee. voilà. yaa ngi wax ne français yi ñoo ko tuddee noonu kon mën nañoo njort ne lataa ñoom ñuy ñëw neneen la gore tuddoon. ah kañ waa ndax gore xam nga dafa jàkkaarloo ak euh, euh, suuf si maanaam li lii nekk presqu'île du Cap-Vert dafa jàkkaarloo ak moom dégg nga boo euh, boo fekkee da ngaa nekk Gorée ci fisalu bi di di di teere mbaa fu muy demee yaa ngi jàkkaarloo dégg nga ak li la féete tàmbalee ko yaraax ba Bargny maanaam digg diggante bi yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi caaray yaa ngi yaa ngi caaray yaa ngi mbaaw yaa ngi tëngëj yaa ngi bari yi loolu ngay jàkkaar lool bu dee nag ci weneen wàll bi nag yaa ngi jàkkaarloo dégg nga ak ndakaaru alors boo waral nag gannaaw nag foofu foofu réewu lébu la lébu yi amoon tur wu ko joxoon ñoom itam ñu tuddoon ko Euh, euh, ci tur woo xam ni da euh, dañu ko dañu ko jële ci di daan tax ñu daan fa dem ndax dañu fa daan dem ci wàllu cosaan di fa tuuru mbaa tax mu am ñoo xam ne bu ñu musaa napp jën yu bare bare bare bari foofa lañuy dem nag defar ko fa weer ko fa ba mu nekk ay géej alors mu waraloon nag barab boobu ñu tëddewoon ko nag la ëppoon ca gàncax ga fa newoon gàncax googu moo doon moo doon béer béer euh, euh, ak garab la goo xam ni dafa xaw a xeetoo ak euh, li li ñuy tuddee ci kajoor xewar xewar xewar alors ñu tuddee ko nag béer ya géej maanaam béer ya garab yi di yi nekk ci biir géej waaw béer ya géej mooy curul bi ko lébu yu jox bi tubaab bi pour bu fii portugais yi ñëwee nag laaj naka la borom bi tudd alors ñu wax la ni la moo la beer ya géej ñoometoon ñu bind wala ci ni ñu ko déggee bége gi ce loolu nag xam nga ga daaw nag du du bindu alors waaye nag yaa ngi ji de gini mi mu ngi noonu béer gi ce maanaam nii beer yëggee ji ma comme plus tard bu bu portugais bu portugais si euh, wàccee ci suuf ba si euh, euh, foofu ñu doon ñëw lu tuddee portu Portugal. Mm. Portugal. Mm-hmm. Sali. Sali. xam mm-hmm. nga même chose tam. da nga ne ñoom dañuy heureusement Sali moom si mooy compliqué ndax ni ñu ko ni ko déggee loolu lañ ko bindee. Mm. waaye ñoom tam ñu jox ko seen tur jox ko Portugal. c'est-à-dire porte daale hmm. maanaam barab boo xam ni euh, buur daal yi moo ko moomoon bon et cetera voilà hmm. kon bokk lébu yi ñu ngi tuddoon Gorée Béz euh, Béria Guèye hmm. maintenant plus tard nag voilà di euh, bi hollandais yi ñëwee ñoom nag ñoo jox nag barab bi tur wii ñu ko xamee muy law ba fi ñu toll muy Gorée et eh, Goose Reds. Hmm. waaw kon boobu mu ngi noonu ah ci wàllu woowu. Mhm. Mhm. alors ban rôle la Gorée joué ci njaayum jaam ñi. ah xam nga jaay euh, euh, jaam. Mhm. mi ngi tàmbalee ci euh, kenn ji wax ci français. ngi tàmbalee bi seizième siècle Euh, di jeex. Hmm, boori dix-septième waa ñuy dugg bi mu jeex hmm. ñuy dugg dix-septième siècle hmm. maanaam diggante ay ay ay ay mille cinq mille cinq cent cinquante dégg jëm nag mille six cent. tax bu njëkk ba portugais yi seen bopp euh, bi ñu fi jëkkee xam nga ñoo fi jëkk a ñëw. ñoom daanaka daawuñu jënd jaam. ndax jamono yooyu da nga di jaam nekkuloon marchand njëkkaguloon marchandise bu rëy rëy rëy rëy maanaam dañ daan déggoo mhm. ak buur fi ne woon nga di dégg nga di buur yi nag may leen nag ay ay ay ay ay ay seen i jaam mhm. bu ko defee nag ñu yóbbu de mhm. dañuy daan yóbbu Portugal maanaam diggante euh, euh, njeextalu euh, quinzième siècle ba ndoorteel seizième siècle daanaka jaam yu bare bari noonu bari lool waaye nag jaam yi ñu ñu ngi leen daan yóbbu euh, euh, Portugal. d'accord waaw ginnaaw si gi nag la ñu def yi changé bi ñu bi Amérique feeñee nag voilà lañu tàmbali nag gis ni jaam yi foofu la ñu euh, ëpp njariñ mm. ñu leen nag léegi nag jënd ak alal ju bare bari te fa leen fa nag yóbbu. alo donc bii moo euh, euh, mooy cosaanu esclavage maanaam mooy cosaanu njaam gi jëm hmm. euh, Amérique hmm. waaw fii ci Afrique nag ah ma fii ci Afrique nag esclavage ak taarixam nu ci mën a wax voilà très bien xam nga fii ci Afrique nag dañuy far di ràññee ñetti barab yu jaam yi daan dem hmm. ñu daal jënd jàmm maanaam barab yi barab yi yi daal jógee ak ak fi ñu leen daan yóbbu mm-hmm. d'abord mooy fii ci géej gi ah, maanaam jaam yi ñu daan jënd mm-hmm. ñu jëm Amérique ak jaam yi daan jóge ci euh, euh, xolu xolu bi jën nag ci euh, réew yu mel ni Maroc Algérie ak Tunisie ak libi ak yeneen jaam yoo xam ne dañ daan jóge ci yeneen wàll yi ci Afrique Afrique de l'Est maanaam Afrique dëkk ba bi bi penku dégg daan jënd daan leen yóbbu nag ci réewi arab yi alors bu ci nekk nag lu bëree bëri ni saa ci li euh, liñ ci wax ci cosaan lu lu lu lu xalabu la maanaam lu ñu mën a dàq la ndax bu ñu nee dégg nga de euh, euh, njaam gi ca Sahara. eh bien mi ngi mi ngi feeñ ci jamono yi ñu ko waxee loolu moom ta euh, euh, jamono dafoo dàq bon day compliqué na nañu am rek ci euh, Atlantique bi. alors ci Atlantique bi nag donc njaam gi mi ngi commencé n'est-ce am doole bi nga xamee ni Christophe Colomb fe ci ñoom li ñuy wax de feeñal na li ñuy tuddee Amérique hmm. voilà ak njaam gi nag am na am na njariñ. ndax indien ya fa nekk dégg lañu la euh, woon ci jaam yi attanuñu ko woon maanaam di leen liggéeyaloo ah, loolu moo waral nag euh, ci gàttal de ñu xalaat ni nit ñu ñëw ñi ñoo ëpp kartan dégg hmm. nga nag attan euh, liggéey yu jafe-jafe yi nga xam ni loolu la doye jàmm maanaam bay déqi eh, ak ak ak yooyu hmm. lépp loo xam ne liggéey bu ànd ak doole hmm. nit ku ñu dégg ne moo ci moo ci man hmm. loolu moo waral njaam njaam gi nag feeñ alors ñuy nag di jënd jaam yi nag di leen fa di leen yóbbu nag Amérique ci gàttal de waaw d'accord ndax gore googu daan nañu fa denc ay jaam ni nu ko waxee dëgg-dëgg ah kañ alors gor ci boppam nag bi nga xamee ni euh, nja euh, euh, njaam gi nag am na doole lool lool li ko tàmbalee ci ndoorteel dix-huitième siècle daf loolu lu mat a jàpp la mm-hmm. ndoorteel dix-huitième siècle alors jënd jaam yi nag dafa amoon ñaari wàll mm-hmm. wàllu yi nga xam ne moom lañu daan tuddee wàllu wàllu yoonal wàllu aw ci yoon bu ci loi mm-hmm. maanaam loolu lañu tuddee l'esclavage légal mm-hmm. disons le trafic légal maanaam euh, euh, njënd ak njaay mu ànd ak mu tegu ci yoon mm-hmm. ak weneen euh, trafic boo xam nag ni mooy illicite illégal kooku tam c'est trop compliqué nañu yem rek ci kàddu ci bu légal bi loi moo ko tëral te euh, euh, ni mu euh, ni tëddee ci loi mu ngi nag aju ci xeetu Europe yi bu dee ci français yi dégg nga fi mu fi ñu ko tëral mooy mooy ñoom li ñu tuddee le code noir te seen ministre bi tuddee bi bi bi tudd Colbert xalaatoon ko. bind ko ne nit ku ñuul euh, moo euh, armoire bi taxaw wala mhm. taabal ji ñoo yem mhm. dañ koy dégg méngale dégg ak ak lu mu mën a doon waaye waaye bokkul ci nit ñi mhm. ba mënees na ko euh, boole ci lépp lu ñu mën a jaay mën ko jënd tam bon donc loolu moo ko waral ba tax na jaadu na nangu nañu loi tëral na ni mën nañu koo jënd jaay ko wala jaay ko ku ko keneen ku ko jënd voilà. léegi professeur euh, Goré Gougoulé euh, wax nañu ni tey am na jiixi jaaxa ci rôle bi nga xam ne euh, xëy na joué na ko ci esclavage loolu yéen ñi nga xam ni ay historien ngeen seen xel màcc lool ci taarix ba ngeen déggee werante gu ni mel ana lan ngeen yëg alors ba ba tontu ci loolu ci maanaal tam maanaam jox maanaa Goré ci boppam dafa am ci euh, taarixu euh, France ak euh, réew réew mi ñuy tuddee Haïti mbindeef moo xam ni dëgg da ca ràññeeku bu baax a baax ñu naan ko Jean-Baptiste Belley Belley bi nga xam ne révolution francaise am na dégg moom bële dafa bokkoon dégg nga ci ñi nga xam ne ñoo fippu woon ba indi fa révolution ba taxawal seen indépendance alors ba ñuy xeex nag loolu nag bële moom ci boppam moom la ñu tànnoon ci ñetti député yi waroon dem France dégg nga siégé ci seen assemblée yi ak ak les grands noms des révolutionnaires que ñoom Robespierre ñoom Danton ak ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. alors Jean Baptiste Dibalé moom moom ci boppam fii la juddoo bi ñuy bi ñuy bi yaayam boobu mi ngi fekk muy nàmp am naan gën gee bari ñaari at alors bi ba foofu ci ñoom ci ko jàpp nag indi yaayam gore gore nag léegi day la ñu jëndee yaayam boole wàllu ko ci moom moom bële moomu nag mooy dem ba màgg nag. dégg day nekk député Haïti dégg day nekk tam député euh, Haïti ne ko envoyé ko convention française mu nekk député fra député haïtien révolutionnaire di siéger ci convention bi loolu loolu moom euh, mën naa ko euh, mën nañu ko ci ñambasaale alors maison des esclaves dëgg la mooy barab bi xam ñëpp xam nañu ko waaye nag di euh, ma ko ni ma ko gisee te du man rek booy ca njëlbéen ba ñuy euh, rëdd kër gi di ko tabax jënd wala wala wala wala jaay ay jaam taxul woon ndax kër gi mi ngi màndargawoo ci diggu dix-huitième siècle xëy na euh, diggante ay at at atu mille sept cent cinquante gën gee bari mille sept cent soixante dix yooyu alors jamono yooyu nag Corée tubaarkal débéri daf dafa maanaam dafa dafa dafa alal ndax jaam yi alors te dafa fekk tam ni muy jamono yi nga xam ni euh, jigéen ñi ñi ñu tudde signaare maanaam ñu ñaan signaar signaar signal mooy maanaam mooy métis ci gore yi nga xamante ne ni seen seen i baay ay tubaab lañu woon fii yan fa doon nekk nit ñu ñuul alors ñu ci bare bari nag euh, ci ñoom euh, euh, signal yooyu ñi leen ñi jur di seen baay bu ñu musaa ñibbi dégg nga bàyyi leen fi ak seen yaay yu ñuul bu ñu màggee dañu nekk da ay njegamaar yu jekk yu rafet bu ko defee nag ñeneen ñi ñëw itam eh Euh, euh, euh, di leen bëgg te xam nga jamono yooyu maanaam sëy niñ ko xamee tey di daawul am dañ daa wax rek ni fa mariage à la fa à la mode du pays ah waaw léeg-léeg nag mm-hmm. kilifa jógee France mm-hmm. nekk ci île bi am nag kenn wala ñaar yu muy amal ay doom alors bu fekkee ne ku laa biir la nag da koy wutal kër may ko kër mhm. ba tax na ca njëlbéen maison des esclaves ci noonu la sosoo maanaam euh, euh, euh, ku ku am doole mhm. dégg nga nekk ab mhm. moom la ko nekkaalem may tabaxal defal ko ko kër muy këru dëkkuwaay yi. waaw muy Ancolas si li ñu wax. ah ni kër gi bindoo. Mhm. gis nga ko de. waaw ci kaw nekk ci kër nekk kër gi. Mhm. maanaam dëkkukaay bi. Mhm. ci suuf nag nekk ay magasin yoo xam ne lu dee lañ fay def nag. te moom moom ki nga xam ne euh, euh, euh, moo moo jëkk moom kër ga ay biiram li ci ëppoon doole. amoo jaam ci la bokkoon waaye nag jaam yi ñëwuñu si biir këram mm. li ci ëppoon moo doon leneen li mu fi daan boole maanaam di di jënd dugub ak lépp loo xam ne day ah, lu ñuy lekk la mu jóge ci mbay su ko defee ba gaal yi mu gaal yu ndaw yi mu am nag ñoo daan indi nag ñoo daan indi eh, eh, loolu loolu mu daan jël jënd Tëngéej wala mu jënd ko Bargny wala mu jënd ko Ndakaaru bu ñu jiyee nag ba teer si nag ci buntu boobu ñu tuddee voyage la porte du non retour dugal ko ndànk nag ay bagages am ak parce que parce que gaal yu ndaw yi day looco yi dañuy dégg ñëw ba sa suuf ci buntu bi ñeesal hmm. ko ndànk ay saakoom wala wala ay ay man maanaam la bagages yi yi gaal yi daan yor. Hmm. mu dugal ko nag ci magasin yi ci suuf nag. Hmm. foofu la nga xam ne foofu la ñu tuddee foofu la la la tuddee prison bi. ak ak ak li suuf mm-hmm. foofu yëpp nag magasin marchandise la woon mm-hmm. alors ca njaal benn de waaw si gi nag bi euh, gore nag gënee nag am doole ci affaire njaam di njaam jë jëni jaam jaay jaam mm-hmm. ca la nag ñi doon kër ga soppi nag li waraloon kër gi am ñu daan am seeni jaam nag fawal nag marchandise bi daan ne ci suuf nag mhm. di leen fa denc nag. d'accord. noonu daal lee fii demee ci gàttal de. moo ne li indi polémique nag ci réseaux sociaux yi ba xaw a yëngal sax réew mi boroom xam-xam yeeg ñëpp di ci wax. Euh, te thèse bi itam lii la avancé mooy que ni kër gi ca njalbeen euh, kërub soxna soosu la woon Ancolas euh, ñu mayoon ko ko mu nekkoon doomu France. très bien doole nag xëy na ca la ñu a jëfandikoo ngir ngir yeneen i mbir euh, kon yow werante bi loo noo ko gisee xëy na ñàkk xam histoire dëgg-dëgg la wala bëgg coow rek la ci sa xalaat waaw boo tamay la tey xam nga man damaa bokk ci ci ndax d'abord euh, euh, mag la mm-hmm. la mag ëpp lay sagar waaw mm. ay gune lañu waaw sama classe gi Euh, même sax ñu la mag sax. waaw waaw xam nga euh, man bu ma bu bu ma nee maa ngi ci quatre-vingt yi nga ni jëm kaw. kon mooy tubaab euh, dégg nga ni borom soixante ans sax ak borom soixante dix ans yi sax ñu bare bari ak rawatina borom cinquante ans yi. wala borom quarante ans yi. ah sagar bari wuñu. Mm-hmm. ba tax na te loolu dafa dafa bari ci ñoom ñu bëgg warante. Mm-hmm. maanaam ñu bëgg buzz. te mag bi mel ni man wax dëgg yàlla waxul dara ci bës. yàlla na ma yàlla mosoon ci bës. <laughs> waaw waaw loola da nga a wax ba ma la xamee ba léegi loola ngay wax. <laughs> mu ngi loolu. Mm-hmm. <laughs> mu ngi loolu koo xool ba ba tax du ma si dugg. Mm-hmm. waaye gis nga da da damaa tee bëgg dama bëgg a ñaambaas tuuti. waaw ci euh, euh, mbiru signal yi. Mm-hmm. nga euh, jamono yooyu gouverneur yi xam nga yor na kilifa gore. nga Euh, euh, euh, dañ daan bari déwle ay nekkaale hmm. daf ci am na kenn koo xam ni ku ràññeek loolu waaye di ab saay-saay la woon hmm. mooy chevalier de Boufflers xam nga tur tur gu rëy la yor te koo fonk hmm. waaye kàccoor la boo xam ni <laughs> ñetti at la nekk gouverneur Gorée waaye diirub ñetti at yi attention la bee wax de man waxuma bàyyi na gore lu ëpp euh, juróom fukki doom ak ñaar hmm? waaye nag ca njëlbeen dafa ne labbe yi ku ci juum dëgg de bi lu si ñim ñi seen bàyyi dinaa la sàkkal pexe hmm. mu amoon ko ak si ñaar yi waaw waaw waaw juróom fukki doom ak ñaar mu ne lu ko ëpp ke ñu nay bokkuñu bàyyi. bokkuñu ah maanaam ah, bokkuñu ndey. aha ah, ma bokkuñu ndey waaye waaye waaye ñoo bokk bàyyi. waaw autant pour ñoo bokk mm-hmm. bàyyi. Mm-hmm. muy nag laa bii nag bu kenn nag feeñal sama tur ci registre yi. Mm. ba tax na eh bien doo amul benn boo xam ne dañ naan diw bu fuleen la tudd. Mm. déedéet jamais alors donc loolu moo tax woon ab kàccoon la ab saay saay la te loolu dëgg de ñu bëree bëri ci ci borom teel teel yi. Mhm. seen gis-gis yeggu mu léegi bu weesoo maison des esclaves professeur. wax mhm. nañu itam ni amoon na yeneen esclaverie maanaam feneen foo xam ni dañ fa daan denc ay jaam. waaye xëy na bi njaayum jaam gi jeexee dañu ko di toj maanaam <laughs> yàq preuve yooyu. Euh, mhm. ba fi mu ne tey xëy na bërëb yaa nga ca gore waaye mënuñu ne fii la ndax loolu mën nga kaa dëggal. wala nga ah. indil ñu ci ay. ah kañ ah soo gisee ni gore bindoo. Euh, euh, foofu ñoom ñoo maison des esclaves euh, nekk daanaka euh, esclaverie yeneen yeneen yi euh, ñu ci bari bokk fo ci foofu la ñu newoon diggante ci montagne bi maanaam suufu montagne bi ba ba ngay egsi dëgg de ci ci ci ci ci ci ci port bi fi fi chaloupe bi di taxaw maanaam li jàkkaarloo ak ak penku. dend ak maison les esclaves xam nga ko waral hmm. ndax ci weneen wàll yi maanaam li li li li woon euh, euh, euh, li ngay jàkkaarloo ak ndakaaru foofu gaal yu ndaw yi duñ du ma sax di taxaw ndax dafa dafa bari ay ay ay ay ay ay xeer yu yu mëddu hmm. ba ba tax na gaa gaal yi yu ndaw yi mënuñu faa teer ndax dafay dafay dafay ay accident hmm. kon boo loolu moo waral plus tard nag dina nekk ay kër yu dëkk waaye nag euh, tabax fa tabax fa euh, euh, kër yi esclave moom musu fa am ah mm. ci la ci la ma jàpp de kër yi esclave yi daal. Mm-hmm. ñu ngi jëgale langue ak maison des esclaves mi nga mm-hmm. xam. ñu weyal démb ak tey ba léegi ànd ci ak professeur Abdoulaye Sokhna Diop euh, nekk paléo anthropologue di waxtaane euh, coowal euh, gore gi nga xam ni jamono yi yëpp moo lëmbee actualité bi li ko waral di werante bi nga xam ni moo am ci maison des esclaves ndax kër yi jaam la woon am déet professeur bu ñuy wax njaayum jaam Sénégal mucc ci wante ndax mun nga ñu ñëwaatal ci njeextal yi nga xam ni am na ko ak justement ban loraange xëy na la amoon ci askan yi fi nekkoon jamono yooyu. xam nga nja njaayug uh, uh, uh, jaam gi loolaange ji mu indi ci réew mi bari na lool ndax tubaab yi dégg day ci bëgg muccal seen bopp ndax tuuma yi tegu seen kaw dañuy faral di bàkkoon yaa seen buur yi dégg day ñoo daan jaay ñoo daan jaay ñoo leen daan jaay ñoo daan jaay seen i maam. dëgg la buur yi eh, ñu ci bari bari ay ceddo la ñu woon mm-hmm. te dañu sikka ah, attention mm-hmm. xam nga nag démb jamono boo boo ci nekkee nag ah bul ragal bul ragal de mm-hmm. ndax mën na daa wax xam ni dina merloo diw mbaa mu merloo diw ndax samaam da jaay jaam bu samaam da daan nit da daan rayaate da naan deret di nga day xam nga neexul a dégg ah? <laughs> yaa dégg de. waaw maa ngi lay dégg bu baax. xam nga loolu neexul a dégg. Mhm. Euh, da ngay xool euh, ku ku mel ni euh, Yacine boobu ak ak Maajoor ah mhm. ak Biram Yacine boobu Maajoor dégg day rey jabaram mhm. ngir mën a falu sangoo deretam xam nga loolu ne metti naa nettali nga xam tey biiram yaasin boobu mu woowu daal mhm. waaw yaasin boobu mii ndeyam moom la dégle maajoor la ren bi sangoo deretam noonu tam la gëdëg la amee tam ci ci ci buur yu baree bari mhm. buur yu baree bari bu ñuy nag jaayee nag seeni nit euh, euh, ñu daan soxla euh, di jëndi jaam mhm. ñoo leen ci daan xiirtal ndax lu ay ay ay xeex yu bëree bëri am na te ñoom ñoo ko daan sooke ñoom ñu ciy biti mm-hmm. ndax dañoo fee indi xëpp fi nag sàngara sàngara ak fital ak euh, euh, euh, poudre bi muy àndal mm-hmm. ak sam see seen marchandise yi gën a ñàkk fayda mm-hmm. ay weñ fii ay yu kenn xamul yooyu nag lañ daan indi nag di ko xëpp nag buur yi nag dégg nga ba ba noppi nag di soo ay ay ay xare ay xeex seen biir bu xeex amee nag ku jàpp euh, ku jàpp say jaam dégg nga dajale di leen ko loolu moo waraloon nag jaam bari dégg euh, euh, di leen dajale ci légalement de ci barab yu mel ni bari yu mel ni Gorée fii dégg nga di leen fa nag ci gaal yi yóbbu am na sax ci ñi naan jàpp ay doomi buur ci wër de ay doomi buur yu ñu jàpp mhm. daf leen di jàmm jaay leen ñu dem Amérique mhm. ay doomi buur de ay doomi daal yi xam nga daal yi da nga ne moo moo moo moo mooy héritier mhm. waaw maanaam ak ak itam ñoo xam ne tey tey dañ leen man lañ leen tudde des yu bare bëri jaay nañu leen yóbbu Amérique hmm. seeni sëtaati sëtaati sët ña fa hmm. am na nag ñu koy fonk ñu koy ñu koy xeeñtu waaw hmm. donc loolu itam lu bëree bëri tubaab yi dégg ni ñoo ko waral te nag dañoo bëgg nag eh, eh, mucculoo seen bopp di tu ci ñoom waaye nag lu ngeen jàgga te ñoo njàgg ci gàttal mu ngi noonu waaw. Mm-hmm. alors professeur mm-hmm. euh, ku wax euh, ndakaaru euh, démb mm-hmm. sa xel dafay dem ci lébu yi. lébu yi ndax amoon nañu ab taxawaay ca gore ak itam bi esclavage ñëwe njaayum jaam gi ñoom naka def ndax am nañ ci rôle bu nu ci joué. ndakaaru ak Gorée ca njëlbéen Eh, ndax bi bi gooyee eh, tàmbalee di ràññeeku mm. booba daanaka ndakaaru tekki ndakaaru tekkeegul dara mm. ndax bi fi Hollandais yi di ñëw mille six cent dix sept wala mm-hmm. ndakaaru ci boppam amagul sax benn penc ci taxawagul mm. là c'est très important hein jàppale ma la wax de. ab ndànd fooy fooy la woon rek. aha très bien kenn fa woon hmm. benn dëkk moo nekkoon tey jii fii sëgi yaraax yi nekk sëgi catholique yi hmm. moo doon moo doon beeñ hmm. diggante pas beeñ ak itam euh, hydrocarbure beeñ googu nag moo nekkoon dëkk bu jàkkaarloo ak gore te ña dëkkoon beeñ ñoo daan faral di dem euh, euh, gore di fa def ay ay di fa di fa def seen seen i seen i xamb wala di fa weer seen i géej di fa def seen i muraada uh-huh. alors loolu loo loolu c'est très important Dakar amagul mm-hmm. te biñ ci tegee nag ay at at at yu xaw a néew jëm euh, xëy na euh, ay ay ay six cent cinquante yooyu. Lanak premier village penc samp sampu maanaam dëkk bi njëkk a am jëgëri mooy attention euh, euh, euh, xam bugguma détaillé xam nga lu tax bugguma détaillé ndaxte dama ràññee xam bu baax ni ñu bari dañuy jël li wax dañ koy aw di ko tëggaate neneen di ko jariñoo kon boobu may ma rek ma bañ a sori ci wàllu ndax li ma leen wax kenn dund ko kenn musu koo dund kenn musu koo xalaat yi itam dafa jógee dafa ci li Cheikh Anta Diop daan santaane waaw ci ñuy wàkkirloo ci gëstu ñu bare bare nag lu ñu gëstu waaye dañuy yeeru maanaam léegi day dañoo làqatu quelque part di déglu yow nga nag feeñal li nga li nga gëstu nag mhm. ñu aw ko nag jariñoo ko defee ko neneen aha loolu moo tax bëgguma sori ci wàllu woowu waaw nangul nan la ko <laughs> waaye nag <laughs> naan la wax rek ni bu ñu nee douze penc ci ndakaaru yi penc mu ci nekk de xëy ñu xëy xëy ñu xëy rek ñu nekk douze penc ah yaa ngi dégg de mhm. xëy ñu xëy rek muy douze dafa am penc mu jëkk a feeñ meneen penc tegu ci meneen tegu ci ñuy limu di limu di limu ba mu nekk fukk ak ñaar du ma nag joxe détail jo moo joxe gum détail yi mm-hmm. <laughs> waaw kon boo ñëw ma ko foofu li war du war war la mooy waaw euh, bi nga xamee nii euh, euh, penc yi dem nañu ba nekk ba toll ci diggante ba ba ñeent ba juróom mm-hmm. ah loolu moom mën naa ko wax amul benn gravité. waaw ah cala nag dégg nga nag ko tàmbalee diggante waa Ndakaaru bañ naan dëkk raw. Hmm. xam nga bu ñu nee Ndakaaru mooy la dëkk raw. waa dëkk raw nag ak waa Gorée. Hmm. tàmbali nag alors am le boobu nag dox seen diggante hmm. dina law di law di ko ba lu bare bari ñu seq ko. Euh, euh, ba euh, bu ñu yegsee ci euh, euh, ndoorteel dix dix-neuvième siècle diggante ay diggante ay ay xëy na ay mille huit cent vingt jëm mille huit cent trente yooyu loolu moom mën naa koo wax dina am wax tax jamono yooyu ki doon ñi doon ndey ji réew ñoo doon waa njaañeen ñoo ci ëppoon yaa ngi may dégg de mm-hmm. ah. Mm-hmm. yaa may dégg. maa ngi lay dégg bu baax. voilà waa njaañeen suñu bàyyi Aliou Diagne Mboor ak i maamam. Mm-hmm. diggante jamono yooyu ñoo nekkoon ndey ji réew ndax ndey ji réew tam kooku da dafa am cosaanam. xëy xëy ñu xëy na dëgg de ndey ji réew am. waaye ci jamono yi may yi yëg si yi may euh, euh, wax ni mooy ndoorte dix-neuvième siècle mm-hmm. waa kër Baye Aliou Diagne Mboor ñoo fi newoon ay ay maamam ñoo doon ndey ji réew mm-hmm. alors da ci am kenn ku euh, dafa am doom tudde ko Moussa Yées Moussa Yées mm. monsieur Yes dama bàyyi Aliou Ndiaye Ndoor ba muy dund man dama ko jege woon daan waxtaan ak moom ba ma ko jëkkee laaj ah li ma wax daal mu ngi noonu ma ne ko ne waaw ndax euh, euh, xool nga ci archive yi ah man de sama maam mi monsieur Yes Diagne laal la laa ci xam ma ne ko nag. ci man li li ma feeñee ci gëstu sa sa maam Birahim Diagne euh, dafa bokkoon ci kilifa Ndakaar yi nga xam ne ñoo daan dem di am le ak kilifa gore yi yi alors jamono yooyu commandant Alexandre S moo fa newoon hmm. digganteem nag ak commandant Alexandre S rataxoon na ba. moo jël doomam nag tudde ko nag monsieur Yes. Ah, moo indi bi. waaw. wallaay loolu maa ko wax sama sama bàyyi Aliou Diagne Ba xam naa waa kër ñu may dégg di. waaw yow xam nañu man sosuma. Mm-hmm. waaw sosuma ndax ndax ndax li ma leen sëq ak moom. Mm-hmm. Euh, du ëpp na ñu bare bare ah. ah kon boobu loolu moom euh, mu ngi noonu. Mm-hmm. te ndeysaan mënoo gu laa dafa ci bëgg kontaan ci ak leneen ak leneen ak leneen loo xam ne dama ko daan seq ak moom mu di ma sol mais itam léeg-léeg dëgg ma di ko joxe ma di ko jox ndax lu baax la xam naa ko ci moom laa ko jëlee waaye moom itam yu bari itam am na ko dëgg day ci boo xam ne ci li ma seq ak moom la loolu mën naa ko wax. Mhm. Euh, yamani foofu. waaw léegi ndax mën nañoo jàpp ni lébu yi am nañu mhm. taxawaay wu nu amoon ci njaayum jaam maanaam esclavage fii ci Sénégal. alors loolu nag du bari xam ko waral. ndax d' abord ndakaaru yi fa dëkkoon bariwuñu. Hmm. attention hmm. rek ñoo fi ne waaye nag euh, lim bi bariwul ndax bu ma la waxee ne euh, bu bu bu euh, diggante. mille sept cent cinquante jëm ba mille huit cent yooyu su ma waxee ni ndakaaru bu ñu dajalee penc yëfa bi nekk ku ñu bu ñu dajalee euh, euh, penc yëpp matuñu sax junniy nit waaw matuñu junniy nit junni sax bari na kon de wute naag ndakaaru fees dell ah bo bo mu ngi noonu kon boog tur tur yi rek ñoo fi ne waaye euh, euh, jëmm yi bariwuñu woon lool hmm. dégg ba tax na euh, daaw daawuñu daawuñu am jaam yu jaay. kon daal ci biir réew mi la tubaab yi daan dem di jëli ji. ah terewul nag ñi nga xam ne ñoom la tudd nag les clandestins hmm. maanaam les rescueurs hmm. ñoom dañ daan rëbb jaan jàmm. dañuy làqatu. Mhm. tubaab la ñu dee. waaw wala ñu am sax seen seen ñu ñuul ñoo xam ne ñoom la ñu àndal. ñoo leen di liggéeyal. waaw dañuy làqatu. Mhm. fu ñu ci biir tool yi. Mhm. dinañu yoot ko niip. jàpp dugal seen gaal déwén yi yóbbu tëngéej. waaw parce que <laughs> waaw wala wala ñu dem dangay ba biir géej. waaw waaw jaay ko jaay jaay ko jaay euh, li ñuy jàpp dégg nga wàññi ko bu njëkk di rëbaat. Hmm. ñoom dañ naan rëbb. d'accord alors loolu boo tax nag ci wàllu itam kon bokk euh, euh, jaay yi daan jógee Ndakaaru ah gannaaw la kay non non xanaa xanaa ñu dajale leen ne yóbbu Gorée waaye yow jaay yu njëkk Ndakaaru déedéet bari wuñu dee. bari wuñu woon. te ngay sax te ngay sax bari yi am na ndaxte kenn ci suñu borom xam-xam yi tubaab la tubaab la ko Gabriel Gabriel Dobier moom dafa am ay tableau yu bare bari yoo xam ni dafa leen a defar même ko ci ni jaam yi excès Martinique wala Guadeloupe ak seeni yu ñu andiwaale hmm. léeg-léeg nga daje ci ak ku yor turu ku mel ni Ablaye ni man gis nga de mbaa mbaa mbaa muy mbaa muy Sidi hmm. mbaa mbaa muy leneen leneen mu wóor la ne la kii hmm. alors boo léeg-léeg nga déglu dina ko topp nag ba xam fi ñu ko jaayee te fi ñu ko jaayee du gore donc clandestin yooyu. ñoo ko daan jaay ñoo daan ñoo daan def lu mel noonu. Mhm. léegi léegi itam nag di ñi nga xam ne ay ay ay ay esclave euh, euh, yu yu yu yu yu yu yu loi santaane la léeg-léeg itam ci ñoom mu mu am ñu feeñ ak seen seen tuuri jullit mhm. waaw. Mhm. yor naa ci archive yoo xam ni euh, mille sept cent vingt trois la kenn ci kilifa yi Île du Saloum. maanaam euh, bo booru Toubacouta. Mm-hmm. Toubacouta dégg day jëm jon waa jon waar yooyu. ak baasul. Mm-hmm. kooku moom dañoo joxew turam ndax danaan danaan dajalay jaam di jaay. Mm-hmm. xam nga nu mu tuddam. Mm. Sidi Sonko. Mm. <laughs> Sidi Sonko xam naa Sonko Sonko yi dëkk foofu. waaw waaw kay seen maamaati maam moom jaay jàmm. Mm. arsi yaa fii. ak turam day feeñ. waaw te dañoo wax lu bari ci moom Sidi Sonko. waaw mhm. pare waaye daal daal Ndakaaru daal moom wax dëgg yàlla. Mhm. jaab yi ba ba ba daawuñu fa jógee. waaw clandestin yi Tëngéej ak Bargny lañ doon jaayee est-ce que ci ñaari gox yooyu am na tey loo xam ne ay mandarga la ci esclavage yu fa des yoo xam. ah loolu nag xam nga xëy ñàkkul nag waa waa Bargny waa Tëngéej ñëw may dégg ñàkkul man nañu maa dégg. loolu rek mën nañ cee tontu waaye man li ma si xam daal mooy lenn moomu jàpp nañu ko li euh, li euh, euh, dix-septième siècle maanaam diggante mille six cent cinquante jëm mille six cent soixante dix archives yi génne nañu turu benn jigéen bu amoon doole mm-hmm. bu amoon doole bu dëkkoon ji ci mandarga ñàkkul diggante këri kaw këri suuf jëm coow leen ci Tëngéej mhm. alors jigéen jooju tur wi archive yi génne mooy dooña alors do euh, dooñakati mhm. dooñakati maanaam bu ñu ko doon firi ci français mooy madame Catherine Madame Catherine Dooña Kati. Hmm. Dooña Kati moomu amoon na doole ndax da daan jaay ndax dama moo daan dalal euh, tubaab yi de yi de yenn terre ci foofu hmm. dégg nga di ñàkkul xëy di wut ay jaam yu jaam yu ñu mën a jënd wala dafa di toppatoo leneen hmm. bu leen daan dalal te léeg-léeg itam da daan ànd ak ñoom. dem dégg nga di négocier ak euh, euh, euh, dameel yi wala wala sax ba ci teeñ yi sax alors moom doo ñakkati moomu nag doole ji mu amoon taxoon na ba archive yi bàyyi lu bari ci moom mm-hmm. da daan jaay jaam dégg nga dana dana dana lëkkaloo dëgg la ak ñi jënd ak ñiy jaay par exemple lool tam xam lu bare bari mhm. ah du ñuy faral du ñuy faral di ko tudd. dëgg la xëy na waa Tëngéej yi sama sama mbokk yi Lebu yi. Mhm. <laughs> waa <laughs> waa Bargny yi. Mhm. xëy na am na leneen ñu xam ci doon yëkkati waaye nag nañu gëstu. Mhm. waaw waaw professeur euh, du ñu la bàyyi te waxuñu ba tey ci mbirum histoire ndax tey bi coow li jógee li mu wone mooy Sénégal amuñu wala bariwul boog su dee am na ay mbir yu dëgër yoo xam ne ci la histoire bi sukkandiku maanaam ku nekk mën naa jóge fee indi dara yëf yi jur jeexi jaaxa ci jeune génération yi euh, bindoo waxoon nañu fii euh, réécriture euh, histoire Sénégal wala réécriture mais ba tey dafa mel ni jafe-jafe boobu daal mu ngi fi ba léegi lu toll ni taarix bi mbirum njaayum jaam ak euh, njeexital yi mu am ci àdduna yëpp euh, ba léegi muy am yenn jeexi jaaxa yi est-ce que tey jotul kilifa yi taxaw tabax lu dëgër loo xam ni daal leneen mënta jóge fee indi ci xëy na ay wuute ak xel ñaar ah, maanaam ñi imaam maanaam ñi ñi ñi ñi yor réew mi yàlla nañ ku mel ni sama mag Iba Der mhm. yaanaam wàcc na mhm. ndax li mu man def na ko ah, man feeñu ma ci mbiram mhm. xam nga loolu ah. waaye nag fu ma ci musa toll dañuy yeccoo waaw waaw ba ni mu génn àdduna ba di ko uh, delloowaat njukkal mm-hmm. waaw di ko sargal bu baax a baax ndax liggéey bu réeréerée la def mm-hmm. léeg-léeg tax danaa dem ba ñuy am ñuy dal ci kawam mm-hmm. rawatina neexul wax de waaye nag waa kër diine yi waaw ndax waa kër diine yi ñoom ni ñu gisee démbi jamono mooy sa ma ma tagg ma dëgg baax na waaye bu euh, histoire naree yam rek une fois ci tàggaati du sotti ah faaw faaw tam dégg nga ko ñu di wax waaye nag ku ne ne dafa dafa bëgg nag dégg nga de nii li toll ak da ak ak ak la ak nga bëggee nga bindee ko nii ah du sotti wax jàngu noonu nag hmm. fii ñu toll nag euh, euh, xel yi dañoo jaxasoo. ndax réew mi tam dafa jaxasoo ci wàllu woowu laa wax de attention eh. ci wàllu woowu laa wax de. <laughs> mu loolu. alors gannaaw na loolu la nag xel yi dañoo war a dellu si. ndax fenk yi bari nañu. Mhm. maanaam invention yi yu bari nañu ci ci ci démbi jamono. waaw. te loolu dafa war a dakk. Mhm. fi mu ne ndaw ñu ci bari xamuñu fu ñuy teg seen tànk ci wàllum histoire. très bien ndax benn mbir rek mën nga caa dégg fukki version ak juróom-ñaar. mu ngi noonu dootoo xam lu cay dëgg. li ko waral nag mooy rek ni ko mag yi daan waxee démb ak ba démb bëkk démb hmm. ñi war a wax mënatuñoo wax ñi waroon wax nag ñoo mbel yi nag ba ñi war wax mënatuñoo wax hmm. ñoom ñi warul wax nag di mbel yi li ñuy njàgga te ñoo njàgg kon boog yéen ñi nga xam ne yéen na ci média yi hmm. yéen a war a a ràññee li nga day ñiy wut bés bu ko defee ngeen di leen moytu mm-hmm. te ngeen de di xeeñtu di gëstu ba mm-hmm. xam ba ba ba xam ñi xam dëgg-dëgg fu ñu féete ngeen di dem ci ñoom mm-hmm. waaye ku ngeen ku mu neex rek ngeen ngeen ngeen jox ko mu ba leen ne jox ko jox ñu suñu micro ngeen joxe micro bi wala wala andi leen seen télévision mais faaw daal lu leen ngeen di dégg. loolu nag yéen seen bopp la yéen wala war a yar seen bopp ci wàll woowu. loolu moom dëgg la. très jërëjëf professeur nangul nañ la ko ñu ngi lay gërëm bu baax a baax yow ci disponibilité gi ak yéwén gi ci xam-xam bi macha allah euh, saa yu nu la woowee daanu ci jàngee loo xam ni xamuñu ko woon yàlla yàlla dëgëral sa taxawaay daal di lay itam may wérgu yaram Abdoulaye soxna Diop euh, nekkoon directeur du patrimoine ci jamonoy président Senghor di paléo anthropologue ñu bàyyi la rek nga tàggoo professeur ak auditeurs yi lay déglu. ah kañ xanaa may euh, jéglu ci yàggul xëy na sama jarbaat yi may dégg te ma wax lu leen lu leen mënu la neex dañu ma baal jégal ma te xam ne mag laa. mag buur la loo wax noonu la. <laughs> waaw gannaaw mag buur la ñu jàppee ko noonu rek. nangul la loo wax nangul dan la ko. jërëjëf <laughs> <laughs> kon moom maa leen di jéggul te itam ne dinañ wax naan ni dañuy gëstu. waaw am na dañuy gëstu. Mhm. dañuy dañuy fàttali ko dégg baatu Cheikh Anta. Mhm. armé wu de science jusqu'aux dents. Mhm. n'ayez peur de rien du tout. waaw surtout euh, gëstukat yoo xam ne ñoom dañoo ne ci métier mi ma di leen ñaax di leen xiirtal nañuy xeeñtu ba ma jox la benn euh, anecdote bu ndaw xam nga ci sama rakk yi euh, bokk ci ci ñuy jàngale léeg-léeg da ci am ñu seen gis-gis daal day day doy waar mm. gannaaw man dégg day damaa yegg ci gëstu bi léegi dinaa dem ba bëgg feeñal lu mhm. baat bi awul mhm. man maa koy fent sama bopp baat bi su ma jëlee ndi euh, ci tur yi mhm. tur yi xam nga tur wu ne am na lu mu wurdu am na lu mu tekki waaye wàllu xam-xam bi féete ci tur yi ak seen cosaan baat bi moom moom la euh, dañ ko ëmb ci français mu nekk onomastique onomastique onomastique maanaam bu noonu loolu lay renvoyé waaye onomastique ci boppam li mu lay feeñal dafa am fu mu jógee te cosaanu fi mu jógee soo ko bëggee tudd baat bi amul. waaw faw nga fent ko nag tëgg ko mhm. alors ci wàll woowu nag damaa génne baat boo xam ni maa ko tëggal sama bopp mhm. te attention de ma lay wax euh, euh, sama jarbaat waaw képp koo dégg mhm. mu mu mu mu mu mu mu mu aw ci baat bi rek na sa xel dem ji kooku mu ngi ko dégg ci maguette mii di Ablaye Soxna Diop mooy archéonymie archéonymie waaw archéonymie waaw archéonomie mooy mooy mooy wàllu xam bi féete ci ci cosaanu tur yi hmm. tur yi mbaa sant yi. waaw alors hmm. mooy tur. mbaa sant cosaan. Hmm. bu yàgg waaw bu yàgg. ba ma e, e, génnee baat bi e, yegee ko sa sa sama rakk jooju dafa tiit ñu mu te da xam day ngay jàngale de mm-hmm. day jàngale ñu nga may dégg nag mm-hmm. waaye euh, dafa xaw a mel ni betteel gi ak tiitange gi mm-hmm. euh, euh, jiital nañu ko ba laajuma lu waral baat bi waaw loolu nag xam nga dafa bokk ci maanaam li ñuy tudde rëy te borom xam-xam du rëy waaw man de danaa la ko laaj professeur lu waral baat bi très bien xam nga yow yaa yaa ngi moom euh, euh, aw tur waaye du sant. Mm-hmm. Fatou bu ma yemee ci faatu mm-hmm. moom la ñu tudd ci science euh, anthroponyme. Mm, maanaam anthroponyme. Mm-hmm. maanaam le nom de la personne. Mm. alors faatu ci boppam. falees euh, na ko topp mm-hmm. di ko topp muy indi ay ay ay yeneeni tur mm-hmm. lu mel ni Fatim mm-hmm. Faati ngay dem di ko topp ba fu mu a sore nag dégg nga day egsi la nag ci xeetu arab yi ci xeetu arab yi dégg nga day muy Fatim Fatima waaye attention arab yi seen bopp ñoom dañoo cosaanoo te dañ koy bañ nag ci hmm. lu bare bare dañoo cosaanoo ci nit ku ci xet wu ñuul hmm. waaye ñoom dañ koy bañ de hmm. seen tur woowu nag boo ko toppoon di ko gën a toppaat di ko gën a toppaat da lay indiwaat ci xet wu ñuul boo jëlee itam tur wu mel ni mareetu waaw kazalika boo jëlee nag sant yi sant wu mën a doon nag moom itam même chose xam nga yaa ngi sant Thiam. Ngom. ah Ngom. waaw ah jégal ma Ngom waaw waaw waaw waxal ma ko de. waaw ma ma ma ko Ngom. waaw. ah Ngom su ma ko toppee. fi ma yóbbu dafa sori. ndax Ngom kooku séeréer si ñoo ko def Ngom. waaye ca njëlbeen. xoom la woon xoom hmm. xoom ak itam da nga day xeet yi koy wax hmm. bu bu ñu bu séeréer si ne ngom waaw da am na ñoo xam ne dañ naan nguum hmm. ngum alors boo lawalee dem ngom jooju da nga day ñëwaat nekk ci xom xom ci jamono ak xeet yi koy wax man mhm. nekk xum mhm. xum nag bu feeñee rek day lay daal di indi ci fu sore sore sore sore sore mhm. ak feeñal la ay yeneen ay yeneen sant lu mel ni xumma xumma nga dem ba ci ba ba ci ba ci ba ci naari Maroc yi wala Algérie yi dégg nga wala wala yu Tunisie yi dégg nga ñu nekk la xum xum waaw xum ngay gën di xuus di xuus di xuus di ko sax dem danga de mhm. ba egsi ci li Cheikh Anta tuddee xëm mhm. maanaam ci xëm xëm mooy mooy lu ñuul mhm. waaw xëm di lu ñuul di nga de dina dem di law di law di law di nga de ba ci xeet yi koy wax nag xëm daal di foofu na nekk xëm wala bu dee xam mu nekk xam bu dee xam nag day daal di feeñ ci làkku pël mhm. mu nekk xam mhm. xam xamma mhm. xam xamma da ngay daal xalaat jóge ci lii chercheurs yi euh, yu tubaab yi hamit les hamit xam les hamit hamit xamit et cetera. Mhm. alors dafa dafa sori dafa xóot. dafa xóot jërëjëf jërëjëf professeur. waaye jàng nañu ci macha allah lii moom du ñàkk daanu ci am yeneen i jotaay yi waxtaan en tout cas ñu ngi lay sargal bu baax a baax di rafetlu xam-xam bi ak li nga ko nangoo séddoo ak ndawi tey yi wax dëgg yàlla nayoo benn yoon ci li la yàlla dénk ci xam-xam Diop ñu lay ñaanal nga yàgg fi loolu te amoon nañu mbégte mu rey dalal la ci démb ak tey di la dig daje beneen yoon incha allah ci beneen waxtaan. merci beaucoup kon mbokk yi li doonoon seen émission démb ak tay ñu leen di gërëm bu baax a baax ci ànd beek ñun gërëm itam Bachir Cissé mi nekkoon ci wàllu jàppandal gi Fatou Thiam Ngom la woon ci kàddu gi ñu dig leen daje beneen dimanche incha allah waxtaanee leneen ak keneen émission bi mun ngeen ko teewluwaat ci réew mi officiel mooy suñu chaîne ci YouTube jërë ngeen jëf ñu yendoog jàmm.